استاذ محترم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حاج بابكر دلونا لا نيو اك زياره جيرجف استاذ يوبلو بس بي واو حاج بابكر يوبل بي تي تي اجوما جي دا فاي نييو ريك تي فاتلي نيت ني لو ام سولو تي موي بيسو اجوما لين تي ورا ديف واج دم جوما سانسي خين لو نيه دم جوما توك ديغلو خطبه بي باراي جانغ سورتو كافي مي سورتو كافي موي سوره نيميرو 18 تي فيرسي 10 بي dafa am benn parti bu fa nekk dafa am njariñ te bisu àjjuma rek lañ koy jàng ginnaaw takkusaan lañ koy jàng danga koy jàng yoon yu bari li koy jàng na romb téeméer li nga cay yéene sa soxla bopp lay doon xaj Babacar mooy rabbana aatina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashadan seetlu nañ ko boroom xam-xam yi seetlu nañ ko ci tàkkusaanu àjjuma di ko rëkk lu baree baree baree baree baree bari diigal seen aajo ci biir ñaan gu nangu la Hadj Babacar. Hmm. ajjuma rek lay am possibilité pour def ko ginnaaw tàkkusaanu ajjuma waaye day fekk na nga jiital sa waajtaay ci bëccëgu ajjuma bi li la war ci jumaa jeeg yépp nga def ko ba noppi. Hmm. doog a mujjee loolu ci tàkkusaan bi Hadj Babacar. jërëjëf Oustaz Mor